tey la 17 avril la ñu amaloon lii di procès en appel bu Ousmane Sonko njiitalum Pastef ak Mame Mbaye Niang di ministre du tourisme boobee procès ñu mujjee dàkkaat ba juróom fan ci weeru mai tey nag commerçant yi ñi ci ëpp liggéeyuñu ndax tiitaange bi ñu am ci bés bile. lii dafa war dàkk dafa war a jeex. parce que lu ñuy yàq si journée rek saa yu saa yu sa amee procès lu muy nasakal si économie kenn xamul lu mu toll ñun dañuy nekk ni commerçant yu ndaw lañu donc nit ñi bu ñu déggee ne demee Ousmane Sonko dafa war a dem à tribunal ñu responsable yi nga xam ne ñoo war a ñëw si marché bi pour jëndee lu ñu yor ñu mën a dimbali suñu njaboot du ñu mën a génn parce que kenn ku ne sa bakkan ngay tal. saa yu xewlee barke alxuraan ñun du ñu jaay ni ñuy ñëwee ci mat bi noonu la loolu laa amoon ci li nga xam ne ko. moo métti sama xol te ma leen ko wax defe naa ñoom ñëpp war ngeen ko mën a découvrir ba ñëpp monde bi ko dégg. waaw ah, même boo ma gëyul sama bopp sax maa ngi sant yàlla sant yàlla bu wér sax waaw instant moom dëgg bi ma wax dëgg yàlla sax doxul waa ba taxaw loolu moom wax dëgg yàlla moom nit moom ku dee ak waa instant bi moom dëgg bi moom dafa taxaw dëgër gëj waaw mais maa ngi sant yàlla tamit.